mbokk jullit mbokki taalibe yi yéen di baaxoo safoo seetaan seen chaîne bii di Jazboul Mouride seen mbokkum taalibe Seydina Sané moo fas yéene dikkaat ànd ak te génn si lu am am solo moo di lan lu yees lu yees a yees fii si seen chaîne bii di Jazboul Mouride muy émission ban émission buñ dippee taarub Mouride buñ ne taar Mouride xel yëpp war a dem si luy taaral yoon bu tedd bii di yoonu murit si wàllu wan si wàllum melokaan wàllum colin wàllum doxin wàllum yar ak teggin wàllum xam bokk na si waxtaan googu di waxtaanee kàddug murit bokk na si loolu waxtaanee accessoire comme lu si mel ni wàllum dollu yu tedd yii nekk suñu ginnaaw kaamil alxuraan yi kurus moxtum ñu fas yéene see andi ay leeral yu mata mata mata mata bàyyi xel muy amee fan si seen chaîne bii di Jazboul Mouride TV samedi bu ne bu 17h jotee lu si nekk rek ku si bëgg leeral yu yu leer nañ ñu fas nekk ànd ak yéen si seen chaîne bii di Jazboul Mouride ñu dem seetaani ko te bañu a fàtte euh, activer cologe bi ngir bañ benn euh, information bañ leen a raw. Jazboul Mouride au service de Mame Cheikh Ibrahima Fall.